salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi képp kuy patriote bëgg Ousmane Sonko maa ngi lay nuyu di la ziyaare patriote yëpp woon nan ma ñaan ma ñoom Fernando xale yu jigéen yeeg Bintaak Fatou ñëpp man leen teg naa lépp ci suuf ndaw si ne moom dafa dëgër bopp du teg affaire bi ci suuf ba 2024 leen ak man bu leen kii divertir loo ngeen jël seen panel di ci wax awus kitik Adama awus kitik Adama ba fàtte Ousmane Sonko préparé leen Ousmane Sonko war naa def anniversaire le 15 nekk leen ci loolu ngeen focus ci Ousmane Sonko concentré wu ci Ousmane Sonko bu ngeen toppee wax ji dina leen divertir loo ba dootu leen talati Ousmane Sonko bu ngeen toppee wax ji dootu leen focus fu ngeen dem awus kiti awus kisi si caga bu perte bàyyi len maag moom maa réglé problème bi du yëfu Ousmane Sonko de Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na am wér yàlla na gudd fan du xeexu patriote barke alxuraanul karim moom laa jotal compte personnel la am bàyyi leen ko man fokk si leen te Ousmane Sonko bu mu leen